ñu jëm ci fête bu mel ni tamxarit euh, ca boo fête boo xamante ni bii sénégalais yi dañ ko farataal trop sax euh, ñu ñu tàmm ci cere cere mu nekk euh, à base de mille mille boo ko dégg muy dugub. dugub bi boo ko xoolee céréale complète la mooy céréale bi nga xamante ni bii li ëpp ci fibre yi dafa daf ca des tey xeex suukar bu bëri cholestérol bu bëri day tax tamit digestion bi gaaw mais tay dina len wax lo xamante ni le euh, xam naa ñu bari xamuñu ko ci ci ci ci ci dugub mais dugub mo upp euh ëpp euh, euh calcium 3 fois calcium boobu boko ko minéral bo boo nit ki da kay soxla pour tabax yaxam donc euh, tay source biñ ci gëna xam moy le lait les produits laitiers moy meew ak ak ak ak produit nga xamante la ci ci meew lay jógee mais amna yeneen yoo xamante mu ngi ci parce que tay buñu jëlé jëlee zinc. Euh, zeng euh, problème dermatologique yu bari nga xamante ñu koy am euh, day tax day également eh, li souvent muy muy prostate zeng bob da ci da ci bu ko ci ci ci ci de même que fer déjà fer bi rek li suñu yaram soxla ci ci journée bu 100 grammes de jox yaram donc ñu gis euh, richesse bi tam ne moo nekk ci dugub te nekkul ci euh, ci ceeb bi ñu farataal trop ak blé bi nga xamante ne moom la ñu defaree mburu te ñaar ñaar yooyu ñu ëpp suñu lekk suñu lekk ñun te maanaam lañ ñu di considérer comme des comme des céréales yoo xamante ni dañoo pauvre parce que li ñu wax fi yëpp ci fibre ak tamit teneur en euh, sels minéraux yii nii nii antioxydants yi euh, amu ci comme comme ni mu amee ci biir ci biir ci biir dugub bi te boo déggee ñu naan en fait indice glycémique indice glycémique boo ko déggee généralement mooy Euh, lekk bi nekk suukar bi nekk ci biir lekk bi nan lay duggee ci biir yaram bi euh, bu bu bu kii ne bu bu dugub dafa dafa yéex c'est-à-dire mën na ko lekk te du ko poser problème donc bu ñu jógee ci loolu antioxydant yi nga xamante ne mu ngi ci biir mboq mu ngi ci biir mu ngi ci biir mu ngi ci biir dugub dafa bëri euh, te antioxydant bu ñu ko déggee day tax yaram bi mën na mën na xeex ak les maladies cardiovasculaires mais maladies yi nga xamante ne feebar itam ne moom mooy moom jàpp xol beeg sidit yi Euh, te tamit cancer ñu ngi dégg yu bëri euh, bu ñu doon lekk dugub lu bëri mën na dinañ antioxydants yooyu dina tax euh, ñu mën a mucc ci ci cancer yu bëri donc yooyu mu nekk yoo xamante ni ci biir ci biir dugub bi la nekk mais malheureusement comme que duñu duñ ko farataaluñ ko trop donc njëriñ googu yëpp duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko mën a am c'est-à-dire que ferñeent yi nekk ci ci dugub yëpp bu ñu toogoon fii di ko wax duñ ci jóge Eh, tamxarit tam nañ ci di wor tam nañ ci di ñaan té yaakaar naa ñaan bi njëkk mooy gudd fan naan buur yàlla eh, tamxarit eh, doyen doon yàlla yàlla na mu fekk mais paradoxalement le soir buñu buñu xolé suñu cere mais dañuy def lo xamante ne mën nañu la bi si ci si guddi gi tellement dañuy ëppal malheureusement ñu Sénégal c'est malheureux de le dire mais on est toujours dans l'excès

mais ñu togg toggin ko ñu togg ko toggin boo xamante valeur parce que le temps de digestion bu entre 2 et 3 heures de temps mais tey on gis 19 reer heures la ba heures du matin sama bébé mu ngi nii la parce que man euh, bombe boobu moo cause bi man dama bombe de tous les dangers parce que euh, nga jël dëwlin togg ci yàpp bu duuf jël ginaar boole ci doo dindi der parce que der bi dafa bëri cholestérol euh, yemoo ci euh, nga nga jël nga jël nga jël cere bi euh, am loo dindi ci diw bële teg de côté jël sa sa beurre wala sa diw ñoor def ci biir cere yi jël jël niinaay bële mooy soos bi nga jëloon ci kii bi bi ngay bombee yokk ci amna na ñoo xamante ne dañuy toogaat benn soosu jaga ci wet gi jël yokkaat ci yamuñu ci jël tàndarma jël raisin yokk ci suukar <laughs> mais je me demande bu fekkee pour contraster goût bi la goût salé bi mais tàndarma wala wala raisin bi kese doyoon na mais lan moo ci jar loolu yëpp lan moo ci jar loolu yëpp donc tey.

très rapidement euh, tey sax euh, lekk lekk yi donc nag rawatina cere tamxarit bi nga xamante ne day diis te day niir. bu ñu amoon setantal ci liñu ñu rek mën nañ mucc si yu bari té euh, soxna yi sérieusement ay jàmbaar lañu parce que dugg ci bañ dafa metti euh, mais il y dem dem koy té euh, té dafa suñu Sénégal moy diw gu bari xorom bu bu te am sax tudd nañu trop parce que dañ ko rituel la euh, man tam réglementation alimentaire parce que Sénégal lay gis mew bo bi la couleur bi dafa bëla ñu bindal ci lait entier te ci ci cadre meew dafa am code couleur bo xamante ni le da ci am moy lait entier day xonq demi écrémé day bleu écrémé day vert donc tay je sais pas le motax mais yakana naa lol loolu erreur la boo xamante le ñëpp ñu ngi koy répéter faites juste ben ben seetlu bu ndaw ngeen xol mew yi nekk suñu biir suñu biir suñu biir ki boutique yi mew yëpp bleu té mew yëpp entier té mew bu nekk entier couleur bi dafa war rouge wala lepp ci couleur yi dafa war rouge pour wané ni lii dafa am.

mais ñu ñu choisir lait boo xamante ni bii diw gi bëriwul bu mënee nekk les demi écrémé mooy bi tam ne naturellement moom moo war a bleu ñu choisir boobu wala les écrémé mooy bu vert bi waaw loolu moom je pense que détail la boo xamante ne bu important. tey naa la wax lenn loo xamante ni bii euh, peut-être nit ñi duñ ci bàyyi xel eh, gis na euh, cere ñu ndugg bi ñu def ko cere jël laalu ñax mooy laalu bi nga xamante ne mooy jóge ci. ci mboq mooy mu jóge ci ci di du moins ci baobab lay jóge euh, laalo boobu noonu euh, li ñuy wax ci wàllum antioxydant antioxydant yooyu noonu euh, tamit xeex feebar yu jëm ci wàllum wàllum wàllum xol ak acidité ñu mag yi daan ko lekk danaan gis mag boo xamante ne bi day am day am juróom-ñaar fukki at am soxna su ndaw am ak moom njaboot donc benn exemple boo xamante ne bi bàyyiwuñ ci xel danaan gis ko am 90 ans di dem di dem tool bu ñu la nee kii ay sëtaatam ñu ngi dox fii da naan déedéet te naa de xëy dem tool di ñàkk comme ñëpp fii Ndakaaru ban mag nga fi gis moom cent quatre-vingt-dix ans bëreetul parce que dund bi dafa dafa dafa dafa changé parce que jël nañu euh, yu baax yooyu noonu yaakaar nañ peut-être euh, yu yàgg la dafa dafa démodé génne ko suñu lekk te yooyu moo nekk suñu njëriñ. Yes.